boo sante yàlla ci ñaan Badiane ki nga xam ne moo leen jiite te à chaque fois moo leen di fii li nga xam ne moo défilé 4 avril chaque année fii si Kaaràn ñu ngi si bu baax a baax fanfare bi ngeen jóg taxaw may fanfare bi aussi loxo mu jàll parce que lii tamit rafet na trop suñu mbokku gambien yi chaque année ñoo fiy ñëw àndandoo ak ñun feetandoo li nga xam ne nii moo si bés si dugg. muy la France de la scène du Sénégal. Merci. accueillir ki nga xam ne nii mooy le maire di l'autorité suprême de la commune. waa gis ngeen monsieur le maire mooy wàcc noonu du nuyoo délégation bi ñoo ko kii noonu. xam nga ne kàngaaru xaar ñu invité la si. ñun ñëpp ñoo ci war a teew. ànd seeg daal ak santé. ñu nga xam mooy suñu suñu réew. muy la fête de l'indépendance. Sénégal Sénégal ndaxte si ngeen xoolee population bu ñu teew gis ngeen étudiants yi ñëw fii jaaykat yi marché yi ñëw fii ñi nga xam ne ñooy délégué de quartier yi ñu ngi fii ñi nga xam ne usine ndox yi tamit defee seen participation pour wane ne ñoom tamit ci indépendance Sénégal bi ñoom tamit si lañ bokk féete ñu ngi kontaan ci loolu bu baax a baax a baax maa ngi ñëppoon fii accompagné bi si bis bi nga xam ne mooy la fête de l'indépendance du Sénégal ñu ngi kontaan ci loolu bu baax si ngeen ko le maire mooy yooyu noonu seen doom yëpp ngi fi ay ñoom monsieur Balla Diop ñëpp a ngi fi wantuwaan ñu ngi fi police sénégalaise bi les autorités gambiennes ñu ngi fi de la police gambienne le chef de mu ngi fi teew ñu ngi rafetlu ci seen teewaay ñi nga xam ne ñu ngi fi Encore une fois. c'est Eva, Eva Franco là. Applaudissez encore Eva Franco. Rafet ngeen de. ah. ok. Merci.

xamante ni ñoo bokk Afrique. Uh-huh. ñu jëkk nag ci suñu di wax.

le maire de la commune de Karang taxawaay bu baax ak limu mu contribuer fii pour bis mën a rafet tey waaw mbokk yu ñu di leen xamal nag ne ñu ngi jaajëfal suñu forces armées yi di ko jëkke ci gendarmerie di ci teg la police nationale di ci teg la douane les services de eaux et ak ñi nga xamante ni mooy autorités yi nga xamante ni jóge nañ Gàmbi ñooñu ñëw nañ ji rafetal suñu bis bi Merci, merci. képp ki nga xamante ne teew nga fi maa lay nuyu la sant di la gërëm waaw may commencé di sant ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité yi nekk biir senegal ak autorité gambienne waaw ak képp ki nga xamante ne yaa ngi ànd ak jeunesse bi nekk ci biir organisation bi bépp association bi nga xamante ne yaa ngi fi rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw suñ paree nag ñu ngi jëm ci monsieur le maire maire de la commune monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi lay sant sant gi nga xamante ne am na commencement waaye amul fu muy yem waaw sant gi nag lu ko waral mooy dafa am loo xamante ne muy 4 avril mu jël ko teg ko ci loxo jeunesse bi ñu di ko organiser muy conseil local de la jeunesse bi mu ko ci tegee ñu ànd ak association yi nga xamante ne ñoo nekk biir Kaarang di ci liggéey lépp moyen yi nga xamante ne maire ñu ngi ko koy laaj mu ngi koy débrouiller pour jox ñu ko kon kooku sant yàlla la ñu ngi koy sant foofu maire di la gërëm ci organisation bi nga xamante ne yaa ngi ko teg ci jeunesse Karang jeunesse bi yëpp génn nañ ñëw fii li ci tegaat encore mooy usine ndox yi nga xamante ne képp koo xamante ne yaa ngi yor biir usine fii Karang rek sant nañ la gërëm nañ la lépp ndox mi génn fii ñu di ko joxe amul sunu xaalis bu ci dugg wala xaalisu 4 avril bu ci dugg ndox mi ci biir usine ndox yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo ko joxe pour askan wi kon kooku sant yàlla la bu baax a baax a baax kon dañuy gàttal rek te xam ne mbir mi li li ci des dafa bari trop kon dañ koy kat gàttal gàttal kàddu yi di sant sunu maire bi nga xamante ne moom mooy ñëw pour wax ci euh, wax li nga xamante ne moom moom la mooy doléance am ci 4 avril bi. parce dama préparé woon discours pour euh, événement bi mais bi ma fi ñëwee gis affaire yi nu mu tëddee discours bi foog naa du ma ko soxla. damay wax ak ni ma xalaatee rek di leen jéggalu nag si loolu donc euh, damay commencer d'abord di nuyu suñu gan yi fi nekk mooy suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jóge gàmbi yor sécurité bi si frontière bi bu ma leen nuyoo teg ci fanfaaru gàmbi ba pare nag soog a ñëw si dëkk bi jiital si nuyoo yi borom dëkk Baye Badou Mbuub ba pare nag teg ci conseil municipaux yi yëpp yi nga xam ne ñu ngi yeewoo Kaarang teg ci délégué de quartier yi teg ci imaam yi sëriñ daara yi ak sama xarit vraiment yu baax yi nga xam ne tey dañu ñëw taaral bés bi mooy tous les responsables politiques de Kaarang tey daje nañ fii mu nekk li nga xam ne dama koy rafetlu ba fu lu mën a yem parce que je crois que c'est la première fois suñu frère suñu grand frère Ibrahima Sané ñëw fekkee 4 avril loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax bu ñu paree si loolu ma ñëw si chef de service yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi en commençant par la gendarmerie dem si eaux et park parc douane police ñoom ñëpp aussi ku nekk nga yónnee fi ki topp si kilifa yi parce que kilifa yi maa ngi leen bàyyi léegi Toubacouta ñoom tamit ñu nekk ak sous rafet di défilé foofu donc ñooñu aussi amuñu seen pay ba pare nag ñëw si xale yi nga xam ne maam Sidi moo leen jiite ñu def lu rafet lii maam di dama bëgg nga waxal ma xale kaaral ne kontaan naa si ñoom encore une fois je crois que le premier mars nii lañ ko defee woon yàlla may ñu. ñu def fi journée bi nga xam ne bu journée bi nga xam ne Sénégal ba léegi moom lañuy ñuy waxtaanee ba président de la République en plein conseil des ministres mu félicité Karang donc nga gis ne loolu ay jéego yu mag a mag la tey encore ngeen teelu si waat def lu rafet lii dam leen di ñaanal ku nekk si yéen ku nekk si association des jeunes ku nekk si conseil communal de la jeunesse li nga bëgg yàlla na la ko yàlla may yal na yàlla def ba suba ngeen hérité Kaarang mu nekk Kaarang bi nga xam ne mooy jiitu ci département bi. parce que loolu mooy suñu géntu ñun. te gëm nañ ne dina am te xam naa ne tànk yi ngeen nekk boo leen ko bàyyul dinañ ci egg donc à la suite de monsieur Mame Sidi Diakhaté damay ñëw pour gërëm rek parce que journée bi amul lenn ñu ciy wax comme ni mu ko waxee ñi nga xam ne ñoo moom usine ndox yi. jàpp nañ bu baax ci journée bi il faut ma tudd leen parce que loolu aussi c'est la première fois mu am xale yi yére yi ñu sol t-shirt yi ñu sol yëpp usine ndox yi ñoo ko jënd donc ma commencé par tudd ndoxu Kaarang Okoma Bella Olavio Sali Amdalaay Lalia Ndiyam Machallah Kaarang O Jamila Khadija soxna Mati ñooñu ñooy usine ndox yi nga xam ne ñoo joxe ndox mi ñu naan fii yëpp jëndal xale yi yére loolu lu am solo la wane nañ in fois ne boole nañ seen bopp si dëkk bi buñ ci jógee hôtel La Paix de la Sénégambie suñu mag euh, major Diagne jiite ko moom tamit dugal na loxoom bu baax si journée bi jënd na ay t-shirt aussi pour mandagal place am crédit mutuel bi fi nekk je crois que aussi c'est la première fois ñu jox ñu t-shirt aussi pour boole seen bopp ci fête bi donc ci tour commune bi ñi ma tudd nii ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal seen business bi ñu nekk mu yokk parce que loolu aussi moo leen fi bàyyi euh, bu ma jógee ci loolu damay remercier les conseils municipaux conseils yi nga xam ne 46 lañu. te man ma bokk si ñoom ñoom ñoo ñu may journée bi mun a am parce que bu ñu voté loon budget bi ñu defee lii tey lii du am donc maa ngi leen di santaat encore une fois di leen di gërëm yéen ñëpp di ci teg xale yi waxoon naa ko sànq du ma noppi di leen di remercier parce que li ñuy def yëpp chaque fois dama leen di wax ne yéen a ko moom ñun dañu ñëw pour ubbi yoon rek ngeen mën a ñëw dugg liggéey dëkk donc teg ci jigéen ñi. jigéen yi gis nañ ni ngeen di mobiliser saa yu woote yéen ñëpp ngeen génn loolu aussi ñun ñi leen di sant di leen di gërëm di ñaan yàlla li ngeen di ut seen jaboot yàlla na leen ko yàlla won yàlla may leen gudd fan ngeen yàgg nekk fi di ñu tette teg ci mag yi kilifa yi sëriñ daara yi imaam yi parce que aussi damay wax chaque fois dama koy wax kaarang ñun ñu ngi gis ñaan yi Karang commune bu ndaw la ñu ngi soog am juróom-ñeenti at waaye tey du ñu cité ci département bi benn commune te Karang bokk ci donc loolu sant yàlla la ñu ngi ciy sant yàlla bu baax te di leen di ñaan ngeen dolli ñaani ñu gën a nekk benn tey lii fi nekk rafet na te damay ñaan yàlla lii continuer dama leen di wax ne kii yàlla di fal fal na ko ba pare nañu rafetal nekk benn loolu moo am solo. yi ci des yëpp ay détails la ki yàlla di fal suba ki yàlla di fal ginnaaw suba ak yooyu yëpp yàlla noppi na bu yàgg mais man dama bëgg kaar ñu ànd nekk benn département bi naw ñu ku génn di dem dakaar di wax nga ci turu kaara nga wax wax bu baax wax wax bu rafet parce que nit ñi ñun la ñuy déglu dañ jàppoon ne gàmbi lañu bokk yàlla def nañu liggéey xeex ba du dugal ñu ci biir Sénégal nañuy dégg wax bu rafet ci ñun. ku nekk boo wéetee di wax ci sa morom nga wax lu rafet parce que dëkk bi dafa tuuti te lu waay wax suba ba ngoon ñëpp yëg donc damay ñaanaat encore une fois classe politique bi ñu gën a joxante loxo parce que l'intérêt commun c'est Karang amul beneen intérêt bu fi nekk intérêt bi yëpp yëpp yëpp yëpp Karang la donc képp ki nga xam ne yàlla jox na la nga jiitu fi rek ñëpp lañ topp sa ginnaaw ñu liggéey.